bis bu mag bi nga xam ci moy ndey cheikh bi ci moy magaluk daru magaluk daru no la sabab mom ku ne xam na da ku ne xam na ni mam Cerno Ibra Faati moy borom daru dunya borom daru mom bu ngeen ko degge rek moy borom daru dunya dunya bi mo fi jëk wacc malaika yi ko fi jitu nurani yi fi jitu buñ ko def ben chemin ne fi tap yalla sumi tene de travayam dag bopam ñaar di jamal bi di jalal mu xol jamal ji mu rafet lol mu xol jalal ji mu tang jeer mu jël tene de travay bi solo ko tuddu ibrahima fo wala tur joge ne ko wàccel ci dun bu ni wax aduna ah malayka yi jiitu nañ la fa nuraan yi bu ñu yeggee def nañ fa benn chemin boo demee nag mu fa tabaxalum néeg mooy Kaaba gi ngeen gis ne maam Ibrahima maa ko tabax mu boole ko ñaari soutien mu Ismaïl ak Isaaxa mu nekkoon maçon tamit kon bu ma ñëwee Sukkari fekk maam Yorob Turel man loolu du ma bett mm-hmm. ndax loolu ci démb ndax lii lépp moo ko tabax ab tureelam la yor de waaw na ko tabaxee ci démb noonu la ko tabaxaati fii mhm. lay ci penku ba mooy fii fii nag da di bërëb boo xam ne ku yàlla comme ndimbal ku ne ku fi dugg rek hmm, alhamdulilahi rabbi yombul nag kun fi waree rek fi ñëw ndax yàlla kat la ma waxoon euh, maam Ibrahima da ko ni boo tabaxee néeg bi ba pare na nga yëkkati sa baat ku la wuyu dana la fa fekk loola war a aj gi aj gi tey kon la woon ci démb day dellusiwaat fii rek kon bis bu mel non bu ndajale fi nun war no sante yalla bu baakha baakha baakha a baax a baax di sant yàlla bu baakha baax di doole sante serigne touba mi nga xamni ci si moy jalal ji jamal ji di mam Thierno yoo xam ne di séddale katam nak ko gis rek mu yor dara lu mu mën di yor sayr wa baati mam maam ko ko jox amana mu xam ko amana mu ñak ko xam waye dina xam jox bisa ngi ñëw dana xam ne loolu mu yor maam noo ko ko jox ndax sëriñ Touba da ko ne yaay sama përëgum ni jor dooley góor nag për përëgum ni jor ma la loxom ni jor bi la maam Thierno koy séddale leen te maam Thierno fi muy séddale ku ne xam na ko muy bërëb bii tey nga xam ne ñi diirub li mu fi nekk 16 ans yi borom daara wax tey diirub 16 ans yi mu fi def tey yi fi maam Thierno defoon tey dund bi Serigne Touba doon dundee dundee ak njabootam fii leen ko doon bayee chaque année récolté ko bu ñu ko récolté trois parties lañ koy def partie bu njëkk bi da koy jox njabootu Serigne tubaa gi di fi ba ndax Serigne Touba da ko doon utal man soxna yoo xam ni dañu mel ni ñoo xam ne dana mën a dana fi mën a nekkal waaye nañuy dundee lu lew moo waral mu def jël boppam sànne ko ci suuf si di récolté ndax mbay moom du trahir kenn. di ko récolter di ko def ñetti parti di ko jox njabootu sëriñ Tuubaa gi nuy dunde bi ci des mu koy jox seex yi sëriñ Tuubaa yi sëriñ Tuubaa seexal te comme ci seexal ku ne dana la bàyyi ci dëkk bu récolté ba pare da koy sëf ci ci ci ci ci ci ci baam ay bëri ko sëf ko ci baam fekk la fa nga nekk sa dëkk mu jox la dund bu ren ba déwén ba ca des mu daas ko ba ba France gii tey colonisé nu tey ba mu nekkee ci difficulté gouverneur bi nekk fii daal di woo gouverneur ba nekk France ni ko noonu da na nga ciy difficulté te sunu xaalis day waaj a daanu waaye kenn dong lan gis ci Afrique de l'Ouest goo xam ni buñ dikkee ci moom buñ ko ñaanee danañ mën a danañ mën a lebal loo xam dana yëkkati suñu économie gouverneur boobu mu ñëwee jël gouverneur bu nekk fii nu daal di koy fekk njaareem bi ñu ko fekkee njaareem fii waxtaanu ku ne maanaam loolu ñu bari ñu ko leeral ndax daa war a leer njaareem lañu ko fekk sëñ bi waxtaan ak ñoom ni leen jël leen dem yóbbu leen ko yóbbu leen jël leen délégation bi ngeen yóbbu ngeen yóbbu ko ca Cerno ca Daaru Marnaan ngeen wax moom bu yeggee ngeen diglu ko na ngeen ko wax seen doléance ba pare diglu ko ba ñëwee Daaru Marnaan ba maam maam seen tànk nun ko ku tedd kenn nu yebal mu toog diglu leen nunu ko sëñ ko doon a daanu te fi mu actuellement ku mel ki rek moonu mën a dugg ci affaire bi ki ndax leen waaw ko bëggee woon mun ko danoon bëggoon rek ku ne lebal mun leen waa kañ ngeen di fay nu ne tekk ñoom yëpp mun leen kañ ngeen di fay nu ne tekk mun waa ku xamul kañ ngay fay nooy lebe bàyyi leen ma lebal yàlla daal di jël budget ba ba jox leen tey moo waral France gi yëkkati ko tey kon noonu af am loonu yor am na loonu yoreel te noonu njabootam gi ñoo ko jëli dana ko jëli ci nii wala dana ko jëli ci naa te loolu dañ ko gëm ndax programme nañ ñi ko war a jëli ak ñu war a indi développement bi fii ndax ñee ku ku ne xam na ni maanaam la jotoon a jàll ah dañu ko yóbbul woon waaye dama defe ni indi bay bëgg a jot te indi bi jot bëgg a jot indi bay bëgg a jot ndax gis nañ ci mbindum sëñ Tuubaa mu ni hajjoo hilaya fa baytun kaabatun musibat fa saay bul indi wal urum néeg ba ak buram néeg ba dañ may wuy si te bu ñëwee ku ne xam nañ ci loxob kenn la koy teg muy cerno te cerno séddale cernoy kudd kon lamin alhamdullilah rabbil alamin luñ mëna def lu jox suñu magum talib bi nga xamni moy suñu jëwriñ formé muy baye baka baye baka bakay taw mu sànni ci kaddu ndax mom dafa ak Seydina usman bakay ñew jël bopam jox Seydina usman bakay no reeni usman ko def ci mom limu wara def ci moom boole koog jabotam bu fi jaar gep mu jël ko gestu ko mbolo mi ma sé nekk suñu magum taal bi kon bàyyi bekaay bisimilah kàddu gaa ngoom bisimilah rahmaani rahim jërëjëf Seydina moo wax si ñaar yi rek yi Modou Lamine wax daan ni jataayu borom daaru bi sànq si li nga xamante ni noonu la toogee di di ndoog ñun di bu añandoog ñun di defandoog ñun baayam noonu la ko daan defeek ñun ndax baayam ndekki moo naan xelil moo daan jël baraade bi ci loxo mu tedd boobu di xelli di ndekkee ndoog ñun di añu ñun kenn mosu ko ber Seydina Ousmane moom nongu yeeg daan defandoo loolee rek la borom bii di def ba léegi lii mënut a ñàkk moo tax muy bokkook ñun lépp di toogandoo ñun di añandoo ak ñun di ndekkee ñun di reerandoo ak ñun loolu moom doo ko jële ca bàyyam bu tedd ba. beneen bi nag mooy Modou Lamine li mu wax ci waxtaanu borom daaru bi nii borom daaru la fa li mu wax mooy ñu bennoo. koo xalaat ni dara lu ñagas mas naa dox sa diggante ak moom jóge ca moom jëm si ci yow nga am xol bu sell jébbal ko te yàlla rek tax ak jëmmi te kenn ku ci nekk tamit am yéene ci biir xol jéggulu sa borom jéggulu sa morom moom masa tooñ te mu leer na leen ne tooñ ko te tooñ boobu nga ko tooñoon neexul ndegam mënuñoo jàkkaarloo wëlbatiku demaat bi mooy li Serigne Souman doon wax naa ne daal ni bale boo jëlee benn bantu bale boo ko damee mu dam bale li muy nooy yëpp boo jëlee benn bant boo damee mu dam waaye boo jëlee bale bi lëm boole ko da koy bank boo ko boo ko lemee ba def ni mu damm nga ko soo bàyyee mu delluwaat na mu meloon ñu nekk bale rek nekk benn say baña tas tas nekk benn bantu bale benn bantu bi day neex dam fi itam ci béréb bi tamit mos na wax daal ni lolé ñuy wax walu gouvernement muy nguur balay mëna développer Sénégal du ñu ñëw ba fi def fi waxtaan mu ni lolé ñu tuddé réunion des ministres ñukay def buñ ko défé fi bés dinañ ko fi défé nak buñ ko fi ñëwee ba defee ko fii réunion boobu réunion de ministres gouvernement bi ñëw fi def ko fi su boobaa Sénégal lu ñu bëgg ci Sénégal dinañ ko am te loolee ba léegi amagul xaw ma nag ban président wala ban kii mooy dem ba def loolu képp ki nga xam tamit am nga sa benn leader wala nga am sa benn dara na nga fexe ba mu teg tànkam fii bu tegee tànkam fii naal loolu fas loolu ni dina ko def dina fi toog ndax loolu kat Serigne Soumané na ko waxoon. te lool yi ba léegi gisaguñ ko amul benn nguur wala benn sax ci politiciens yi ki nga xamante ni teg na fi tànkam te loolu waxam la woon démb te ba léegi ñu ngi dox di xool loolu gisaguñ ko loolee nag bu amee ba ñu xamante def nañu fii waxtaan lu war a jëmale Sénégal kanam incha allah liñ ko bëggee dëkk bi demee noonu noonu lay deme ndax fii lépp a ngi fi Serigne Touba ci boppam toog na fi ay weer bokk ak cer Cerno muy taw te te séwatul mu ne ko xiinu barke bu jotati bu xiinati dinaa ko yebal si fii Sëriñ Tuubaa waxoon borom daaru ni ko xiinu barke bu xiinati dinaa ko yebal si fii fii da daan taw te daaru ki du taw da daan taw ba taa ba kii te daaru ki du am ndox ndax neen sunu borom da ko jubaale ak Mikaayel bi nga xam moo yore ndox mi bu nekk mu taw mu taw bu nekk du taw du taw toog na bés ite bi daal di Serigne Touba Thierno ak Rasoululaay li nga xamante ni mooy aajob jaam yëpp jox na ma ko te sama kër gii laa ko bàyyi duma ko yóbbu de mi ngi ci kër gi ni ma bàyyi sunu waa ji nag di maam Thierno nan nu ko jàppal bu baax a baax a baax ndax da doon wax ni Serigne Touba moo attan sama gannaaw waaye Thierno bi su ko mosaan romb. muni jamono kuma gisutul gisatul boo gisee gis ma motax ñu mel nii ñu mel ci mom ku ko japp jàpp nga Seydina usman ku ko bàyyi itam bàyyi nga Seydina usman yalla na nuuree ni defal nak ñu gën ko bu ko ci suñu loxo tax ndax loxo bo bo ba nga ko téye ci suñu xol xol lu ci dugg dootul assalamu alaykum wa rahmatullah kasih Seydina